plateau matinal la Sénégal l'invité de la matinale daal dinay agsi mbokk yi tey am na ñu mbégte euh, dalal ci plateau bi ki nga xamante ni moo di Ndiassé Fall euh, moom Ndiassé Fall moom mooy le porte-parole euh, collectif des des concessionnaires du nettoiement du Sénégal ñu ngi lay nuyu c'est un plaisir ñu lay dalal ci plateau bi. ñu ngi leen yëpp di nuyu seen yi. di leen jëfal ci dalal bi ngeen ñu dalal tey. Ah, dalal ak jàmm tey nag ñu waxtaanee li nga xamante ni moo di seen secteur parce que yéen ah, liggéey bu amaam solo ngeen di def ci réew mi ah, saa boo leen banqué seen yoxo rek réew mi dafay daal di tilim depuis quelque jour yéen a ngi nekk en grève est-ce que mën nga ñëwaat un peu lan moo waral ngeen nekk en grève les causes justement. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu comme ni ñu ko waxee léegi rek donc euh, li waral grève bi donc bu ñu xoolee dañuy dem tuuti ci historique parce que du situation boo xam si nii tey tey tey démb démb démb rek la la am parce que bu ñu delloo ginnaaw tuuti ay jafe-jafe la xam si daf ñu daboon ci at yi weesu donc ñu ko doon pousse muy avancer bu ma ñëwee tuuti sax bala may gën a avancer ma présente leen tuuti parce que ñu bëri dañuy xaw a def tuuti amalgame parce que souvent bu grève amee bu ñu déggee ni conseil ñi liggéey ci mbalit mi dañu taxaw parfois dañuy jaawale ak. ñi nga xam ne si ni mooy ñi nekk waa Sonaged mm-hmm. ak concessionnaire yi concessionnaire yi benn collectif la mu dajale lu mat euh, ñeent fukki entreprise ak ñaar ba ñett ñi nga xam ne si ni ñoom ñoo yor tout ce qui transport euh, collecte et mm-hmm. mise en décharge mm-hmm. jëm ci wàllu mbalit bi donc ñoom ñooy oto mbalit yi ngeen di gis ñu dugg ci koñ yi di jël mbalit bi donc bu ko jëlee ba pare aussi tamit ñoom ñoo koy yóbbu ci décharge bi fi ñuy wax mbëbës. Mhm. yaakaar naa ne ñu bëri xam nañ ko. ah bu demee foofu tamit am na yeneen machine yu fa nekk ñi nga xam ne si ñooy préparer mbalit bi defar ko ba du déborder donc ñooñu ñi nga xam ne si ñoo machine yooyu ak ñi moom oto yooyu ñooñu la ñuy wax les concessionnaires du mhm. nettoiement mhm. donc ñooñu ñoo tey amaloon benn arrêt de travail donc depuis hier ah depuis avant-hier lundi lundi à donc historique bi dafay doon dafa di jafe-jafe boo xam ne daf ñu dab at yi weesu muy problème bu nga xam ni souvent euh, chaque fin d'année dañuy dégg ni ñiy yëngu ci wàllu mbalit mi ñu ngi grève muy mhm. concessionnaire yi mhm. muy ay arriéré de facture yu nga xam si day faral di am chaque at donc bu at mi amee ñu regle ko ci début d'année bi problème yi commencé bu ñu commencé waatee ba premier semestre deuxième semestre arriéré yi commencé waat ñëwaat ñu ànd ak moom ba ci fin d'année bi ñu defaat lu mel nii ñu réglé ko ñu. continué diggante yéen ak état du Sénégal. état du Sénégal effectivement. Ah, par le bier de la Sonaged. parce que mhm. ñun suñu Sonaged moom mooy nekk suñu interlocuteur mhm. direct. Mhm. parce que ñoom ñoo yor léegi wàllu mbalit mi mooy nekk ex UCG. UCG ay sous-traitants ngeen quoi. voilà waaw ñun dañu am ak ay contrat direct ak la Sonaged. ok ñoom la ñuy liggéeyal directement. donc Sonaged aussi tamit am na structure la. am li nga xam si moom moo ko moom comme comme UCG moo fi nekkoon. Mhm. donc gars yi aussi bi ñu ñëwee xool ni affaire yi war nañ ko am na ay changement yoo xam ne bëgg nañ ko ci apporter war nañ xool affaire yi fu ñu ko woon a jëlee pour yóbbu ko ci beneen niveau moom moo waral ñu tëggaat mbir mi. defaraat ko tuddee ko Sonaged mais ba tey même liggéey bi UCG doon def moom la continuer di def tout en améliorant performance bi ak. nañ mm, ko gën a yaatal voilà c'est ça. est-ce que mën nañu xam à peu bi ñaata la. voilà parce que souvent. am na ay montants xam ne jotoon nañ ko avancé ci ci ci ci ci ci kii bi mais xam nga dafa di mbir moo xam ne tey boo xoolee bu ñu nee wàllu mbalit mi parce que dafa ëmb tout tout le territoire national. Mm-hmm. parce que mm-hmm. tey bu ñu nee an mbalit bu njëkk fii dakaar rek nga doon gis oto mbalit tey yaakaar naa ne ñu bëree bëri tey bu ñu demee seen gox nañ fa fekk ay oto donc mu doon mbir moo xam ni peut-être ak euh, comme li ma doon wax sànq de ICG à Sonaged loolu bokk na ci seen programme. tey actuellement mbir moomu daf ñu dafa nekk maanaam liñ naan dañuy yokk cere ji. dolli ñeex. dañu waroon dolli ñeex mais ñeex mi moo dooleegul. <laughs> problème yi nag moo indi loolu. parce que là actuellement nii comme yaatal nañu mbir mi bu mu toll foo xam ne tey boo xoolee ndaw yu bëri problème la woon ñuy dugg ci wàllu liggéeyu mbalit tey boo xoolee jeunes yi macha allah donc ce qui veut que ni am na changement bu baax a baax. Mhm. beneen bi ci des tamit loolu ku gis ni xam ne benn coup lay doon boo xam ne après day ñëw tegu ci kaw. à combien à peu, à peu près ça de euh, quatorze milliards et quelques. quatorze milliards mais am wax euh, huit milliards xam nga loolu li ko waral par exemple tey ñun bi ñu taxawee taxawaay bi dafa am ñetti points yoo xam moo ko waral benn bi comme ni ma ko waxee sànq année deux mille vingt deux bi amoon nañ fay arriéré bi ñu duggee ci deux mille bi ñu am lu ñu ci jox mu am lu des donc bi ñu avancé di continuer di liggéey di liggéey di liggéey ba premier semestre deux mille vingt bi donc. arrière yooyu nekkoon ci de bi ak 6 mois yi ñëw dooleeku ci. donc moom moo waraloon jamono yële ci novembre décembre bi yéen ngi déggoon ni amoon nañu ay taxaw am yu ñu doon réglé ci loolu na donc bi ñu demee ba remarqué loolu mois de juillet bi ñu commencé ubbi ay waxtaan ak autorité yi. Mhm. bi ñu ubbee ak ñoom ay waxtaan ñu nekk ci problème boobu di ko jéem di ko réglé di ci avancé di ci avancé di ci avancé ñu am lu ñu ciy def ñoom it mais ñu gisee ni actuellement ni mbir mi mi ngi commencé di am fu àgg te solution amagu si à leur niveau donc si lañ ñu yabal ci banque yi pour ñu defal ñu ay facilitation pour ñu mën ñu defal ay avance via que ni ñoom ñoom ñooy jël porter garantie boobu que banques yi mën ñu jox ñu mën a dem continuer suñu liggéey en attendant. Mm-hmm. que ñoom après ñu régler loolu ak banque yi. banques bi ñu defalee loolu ñu continuer ci second semestre bi continuer di liggéey donc ba final vers novembre décembre bi ñu taxawaatee noonu ñoom ñu régler problème boobu problème mu. arriéré premier semestre bi à cent pour cent d'une part banques yi am na lu ñu joxoon le reste ñoom ñu soldé ko. fekk na moment boobu aussi continuer nañ di liggéey léegi second semestre bi taxawaat na. ci mois de décembre bi mooy suñu taxaw bu mujj bii nii bi ñu ñëwee ci mois de décembre bi fekk na taxawaat amaan nañu beneen 6 mois de plus ñu ne leen kat lii mënatul continuer parce que mbir mi ni muy demee nii de plus en plus bor baa ñu fàttee fii problème bi parce que réglé dañ koy ci kaw loolu. ñoom ñu xamal ni ñu ah, danañ def seen kéemtalaay kattan comme ni ñu ko daan defee ci mois de janvier bi bu budget bi nekkee en place ñu jéem a xool rek le problème boobu après anne bi di ñëw ñu continuer mën a continuer liggéey bi. mais ñu gis ni peut-être ci début d'année bi ci le 5 janvier amoon nañu rencontre bu ñu amoon waroon am ak le ministre des finances donc vu que ni ay jafe-jafe ak problème calendrier ñu pousse ko ba le 15 lañ dem la amaloon waxtaan boobu mais ci kaw waxtaan boobu ñetti ponk yu moom mooy que ni. ñu mën a fay bor bi au plus tard le 20 janvier muy second semestre 2023 bi beneen bi mooy jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci banque yi muy xaalis boobu nga xam ne si yi joxoon nañu ko que ñoom ñu def lépp ba ñu bañ ci am benn jafe-jafe ak banque yi soit ñoom ñu ñuy topp loolu wala mu indi ay yeneen i problème parce que banque bi moom daf lay wax ni la avance laa la jox donc d'une part daan la yow tu es parce que xaalis bi ci yow la jaar yow lañ ko jox beneen côté bi ñoom ñu ni ñoom ñoo jël garantie tey récemment nii dañ ci am ay jafe-jafe parce que dañ am yenn ci banques yi ñu commencé di woo xamal ni kat fii fin de semaine bii nii. Mhm. fin fin du mois bii nii. Ah, benn xaalis boo fa duggati ñoom dañ koy téye en attendant bu ñu régler. d'accord seen arrière yi responsabilité waa Sonaged ci loolu lépp. bon Sonaged ñoom. xam nga bu ñu ñun ay prestataires en quelque sorte. parce dégg naa ñoom ñu ne dégg naa seen direction bi ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem grève barewuñu donc ça peut être soldé bon vite fait barewuñu yow loolu lon commentaire nga siy def. waaw xam nga bu ne ñu bon man jotaguma information boobu mais li ma ci mën a xam daal ba mun ko wax communiquer démb voilà ba mun ko wax moom mooy ñun à notre niveau bu ne le collectif des concessionnaires mu ëmb presque quatre-vingt-quinze pour cent ci entreprise yi ma lay wax nii muy quarante et quelques entreprises yoo xam ne si ñoo nekk ci secteur bi donc bu ñu nee quatre-vingt-quinze pour cent ci entreprise taxaw nañu donc on peut dire que ni ah, wax dëgg yàlla ñi nekk ci secteur bi ñëpp am nañu ay jafe-jafe. d'accord léegi pour un budget qui tourne autour de de trois cent milliards pour Sonaged. yéen boo xoolee si seen si seen chaque fois parce que le problème se répète yaa ngi koy wax léegi. Mhm. mais à chaque fois dañuy constater que yéen sa da ngeen di à da ngeen di dédouaner Sonaged alors que Sonaged moom mooy. Euh, ak moom ngeen defar. mooy seen intermédiaire seen contrat moom mooy seen intermédiaire da da ngeen koy dédouaner comme quoi que euh, way amul moyen euh, day manquer de moyen pour mën ko régler en même temps yéen da ngeen di offusqué wu mais ki leen war a fay aussi ngeen koy utal lay est-ce que loolu fragiliser wul aussi euh, votre façon de faire walla en tout cas lu tax ba seen problème bi di di di perdurer nii. waaw xam nga xam nga boo xoolee Sonaged wutaluñ ko lay dafa nekk mbir moo xam ne par exemple ñun ñoo ko bokk secteur bi secteur public la ku ne xam na ni jafe-jafe yi nekk ci jël mbalit am ko yóbbu waxuma la tey ku ci nekk tey sa kër boo xëyee teg sa polu mbalit bëggoo mu yendu sa kër le plus rapidement possible da ngay bëgg a wu ak moom. donc ñu nekk ci mbir moo xam ne dafa nekk lu xaw a jafe tuuti parce que lu bëri bëri du mën a comprendre nan nga mën a toogee 5 6 7 ba 8 mois voire 10 mois te duñ la fay nga continuer di parce que problème boobu ça se pose parce que boo xoolee fii entreprise Sénégal wala bépp institution financière bu lay accompagner yow en tant que entreprise trois mois du ko passé ak yow donc tey bu ñu la ne jóge nga ci trois quatre cinq ba dem di huit ba ci dix mois c'est parce que am na lu bëree bëri yi nga xam ne yaa ngi koy sóoraale. Mm-hmm. parce que mbir la moo xam ne tey de dama ci profité waal di ci di ci euh, masawu sénégalais parce que mbir la moo xam ne tey bu amee benn fan gis nañ ko benn fan lañ taxaw gis ngeen benn Dakar ni parce que mbalit moo nekk mbir moo xam si nii du du lu ñuy lu ñuy inventé woon. a commencé sama koñ. day dalay wan daf la koy wan ci saa si. Mm. boo ko liggéeyee moom la liggéey nga xam ne liggéey nga boo ko liggéey nga xam ne liggéey donc SONAGED ñun dédouane wuñ ko seulement que dafa nekk mbir moo xam ne daf ko dépassé daf ko dépassé moom mooy vu que ni ñoom peut-être lépp seen kaw la gàllu ak et que situation bi toll na fu nga xam ne si nii peut-être ñoom ñi ngi continuer parce que boobu ba léegi waxtaanee ñun ak ñoom ñoo ko séq mm-hmm. heure bu ñu amee jafe-jafe dañuy ñëw ci ñoom la ñuy dem directement donc bi mu demee ba mbir mi ñu gis ni kat peut-être affaire yi mu ngi jéggi loxo ci la ñuy yéeg ci suñu interlocuteur muy suñu ñoom seen interlocuteur muy si euh, suñu ministre de tutelle. Mhm. Abdoulaye Seydou Sow. Mhm. bi ñu fa jógee ci lañ yéegaat ba ci ministre des finances. Mhm. tout ça pour mën a xool mbir mu ñu koy mën a régler en régler ko ba nga xam si ni peut-être duñ àgg ci yenn yi. léegi waaw léegi pourquoi ñu dem grève alors bu fekkee yéen a ngi échelonné euh, les voies sont sont ouvertes les voies au dialogue sont ouvertes les portes sont ouvertes pour discuter lan moo lan moo tax ngeen arrêté ah, liggéey bi. parce que arrêté bi mënoon continuer euh, la discussion ba trouver une solution de l'instant où vous avez décidé de maintenant d'aller au-delà de la SONAGED. waaw parce que arrêt bi li ko waral mooy euh, bu ñu demee da ci am noo xam si nekk wax yàlla moo am. entreprise lañu yor dañu am ay charges. Mhm. fix yor personnel di fay salaire oto bi ku ne xam na ni camion ak ji jafe-jafe ci nekk da ngay chaque jour boo xëyee da nga jënd gasoil donc oh, yor entreprise leneen war la ci ginnaaw lu dul personnel bi nga xam si moom nga yor ak leneen ak leneen ak leneen yooyu yëpp doon ay mbir yoo xam ne dafa gàll suñu kaw. Mhm. ku ne la tey man yor naa entreprise yanu loolu lépp ci benn weer ñaari weer ñetti weer ñeent juróom ba juróom-benn ba juróom-ñett xëy ni la kat damay taxaw c'est parce que am na ay raisons yu valable mm. raisons yi benn bi mooy wax nañ ko ci suñu conférence après dañ ko mënatul parce que bi ñu demee autorité dañu leen mënatuñ ko parce que bu ma nee la depuis juillet ñi ngi toog di waxtaan ñu ngi am ay promesse nag ñoom it lépp la ñu mën ak la ñu mënul ñu ngi koy jéem ñu ngi ko doon def parce que buñ nee par exemple premier semestre bi promesse yooyu noonu permettre nañu régler ko ñu dugg ci actuellement ci deuxième semestre la wax non seulement que ni tey actuellement bu ñu xoolee ñu ngi ci fin février donc deux mois yi sax waxuñu ko ñun ci mois de deuxième semestre de l' année 2023 la ñuy wax donc bi ñu demee ba xamal leen ni carrément que ni boobu ba léegi waxtaanee mi ngi puus néanmoins chaque jour ñu ngi continuer di liggéey mais dañ toll foo xam ne tey buñ nee leen mën nañu liggéey mënatuñ ko parce que man boo concessionnaire boo ci jël ne ko ok mun la d' accord dañuy xëy suba liggéey bu subaa bu xëyee otoom du liggéey parce que amul lu mu ci def. d' accord léegi a ngi grève. Euh, lan lan lan est-ce que am na changement ci diggante bi côté autorité yi. waaw am na changement parce que ñetti points yi nga xam si moo taxawoon ñu ñu ñu taxaw def arrêt de travail parce que benn bi dafa bokk ci arriéré de paiement yooyu 6 mois d'arriéré de paiement yi. 2023 muy second semestre de l'année mm-hmm. beneen bi nekk problème mu yi ma la doon wax noonu. Mm-hmm. ñoom ñu régler ko. beneen bi nekk ñu fexe année bii ñu nekk nii bien vrai que am na déjà benn wala ñaari mois yoo xam ne mu ngi suñu ginnaaw ñu fexe def de telle sorte que chaque fin du mois. ñu mën a fay convenablement comme ni ñu daan fa def donc ñetti point yooyu la benn point bi ñu ci waxtaanee donc ñoom gis nañ ni mën na nekk mais pas dans l'immédiat donc démb bi li ñu mën a mujj finaliser mooy à partir de démb am na loo xam ne dafa nekkoon en attente benn paiement ci loolu ci second semestre bi ñoom danañ dañ ko mën a évacué évacuer d'ici vendredi semaine prochaine ñu amaat lu ñu def beneen semaine bu ci toppaat. ñu complété ko accord yooyu la ñu jot a ak ñoom. moo waral ñoom ñooñu noonu c'est le ministre des finances. ok via le directeur du trésor. ministre des finances léegi euh, man lu ma bëggoon xam mooy à quel moment euh, ngeen commencé am jafe-jafe bi est-ce que dafa yemoo ak euh, benn politique de gestion bu ñu mettre en place. boo xam ne moom moo porté wul ay fruits parce que bu fekkee danga nga ko wax léegi sa biir wax na au début tout allait bien ñu ngi doon fay normal et et que du jour au lendemain ngeen commencé di di di di jànkonte jafe-jafe yi chaque année muy répété wu à quel moment de de de votre parcours avec l'État le le, le situation bi installé waa jafe-jafe yi bu mu installé woo moom mooy par exemple comme ni ma doon wax sànq. yokku cere dolli ñeex. waaw yokku cere dolli ñeex bi dégg naa mais comprendre ma. lan mooy cere ji ak ban moment la cere jooju ñëw moment boobu tey bu ñu xoolee par exemple ci politique par exemple le président de la république ñoom dañ def Sénégal zéro Mm-hmm. programme boobu nekk lu nga xam ne par exemple tey ñoom dañu yokk oto yi. Mm-hmm. yokk moyens yi yokk lépp mais xaalis bi nga xam ne si par exemple muy budget bi yi nga xam ne si moo waroon tey doxal loolu budget bi taxaw fi mu taxawoon. dañoo waroon yokk budget bi. c'était en 2019 zéro déchet. léegi nag problème programme boobu nag moo ñuy topp. ñu topp dañu topp léegi vu que ni budget bi yokkuwul parce que ñun aussi tamit am na. tooguñu rek di xaar rek chaque fin du mois ñu fay ñu am na ay waxtaan yoo xam ne si nii peut-être ubbi nañ ko ak ñoom te ñu ngi ñaan peut-être ñoom it ñu gën ñu ci kii que loolu mën a nekk parce que tey bu ñu xoolee affaire mbalit ñun affaire war na mën a jóge fi mu nekk rien ne serait-ce que ñu toog lépp di xaar ko ci état te mbalit bi ñun amuñu ci lenn luñ ciy def lu dul tibb an tuur taal. te mbalit li ci nekk ci richesse li ci nekk ci ci ci lu nga xam ne si ni vraiment waxuma la problème mu fay mais mën na régler problème yu bëri bari biir Sénégal. Mhm. jeunes yi bëree bëri tey jafe-jafe yu ñuy am nii nii mbalit mën na ko régler parce que mbalit bi lu ne mën nañ ko ci def lu ne mën na ci am. dinañ ñëwaat ci loolu Pape euh, bon man damay revenir si euh, Sonaged bi nga wax sànq parce que je trouve que bu fekkee ne da ngay liggéey xam benn entreprise directement. Euh, bon je me dis que ak pro ak si jafe-jafe yi nga xam ne wax ngeen ko yi nga xamante ni moom moo si soulevé wu ba ngeen ba ngeen dem grève euh, je me dis que est-ce que ngeen ni ñoom ñooy seen interlocuteur direct est-ce que ñoom wax nañ leen dëgg dëgg bi li nga xamante ne moom moo fi nekk bu ko defee yéen ngeen mën a sutewu parce que je trouve que grève ngeen euh, bon yaa ngi naan mbedd yi foofu tourné mu nekk mbalit mais moom man bu ma kutee sama kër ba léegi bon voilà gisuma constaté wu ma loolu en fait. loolu sa koñ la. waaw peut-être. de toute façon trajet bi yëpp man gisuma gisuma sinon man maa xool bu baax. c'est possible. Hmm. Euh, je me dis que. su day génn <laughs> lëndëm nag. su fekkee ah. bon en ah, je l'ai pas senti. Mhm. Euh, je me dis que bon yéen seen grève bi euh, est-ce que c'est pas grève boo xamante ne bon euh, di da ngeen da tout en sachant que bon voilà xam ngeen ni de toute façon ça va être résolu après est-ce que nekkul loolu est waa Sonaged wax nañ leen li nga xamante ne moom moo fi moom moo fi nekk wax leen dëgg bi bu ko defee yéen ngeen tonku ci euh, kàddu googu pour mën a pour pour mën a jàll ci leen est-ce que est-ce xëpp amu ci parce que même boo xoolee tamit que ni waa Sonaged la actuellement fi ñu tool nii nii nii nii nii parce que mën naa ni boobu léegi waxtaan ñu ñoo ko seq. Mm-hmm. ñu ñoo mooy euh, lépp lu ñu def wala lépp loo xam ne si nii jëm na ci wàll woowu dañ koy toog waxtaanee ko. donc comme li ma la waxee xam nga tey ku toog presque six mois wala plus de 6 mois di waxtaan ak nit parce que tey lu ma la nëbb Sonaged ñoom ñi ngi doxal seen i mbir ñun tamit dañu yore entreprise. loolu moo jaaxal ay charge war am lu ñu doxal. tey bëgg tey Sonaged dox wala bëgg lu neex Sonaged lu tax aussi tamit ñu ngi wax wala ñuy def noo xam ne si ni peut-être après ñun daf ñuy porter préjudice li am ba am moom mooy que ni waxtaan yu franc la parce que li waral tey taxaw bi parce que presque mën nañ benn fan lañ taxaw. le lendemain bi ñu reprendre du ay xub parce que bi ñuy taxaw dañ wax ni mënatuñ ko bi ñu demee ci biir waxtaan ba tard la nuit ak autorités yi ils ont insisté nañ bu baax a baax a baax que ñu dem liggéey dañ leen mënatuñ ko mais ñoom it bi ñu jëlee ay engagement ñu xamal leen ne carrément ne engagement yi nga xam ne si jël ngeen ko. Hmm. muy que ne d'ici trois semaines danañ régler bor bi à cent pour cent. engagement yooyu noonu bu dafa nekk ay engagement xam bu ci dañ mm-hmm. gannaaw suba mën nañ taxawaat parce que pas parce que dañuy taxawaat pour xëpp wala dañuy taxaw pour taxaw mais dañuy taxawaat parce que mënatuñu dem balaa nga ne mm-hmm. dem loolu moom xamal nañ ko te leer na ñoom it xam nañ loolu xam nañ ni actuellement nii nii nii nii nii semaine prochaine bu nekkee mbir mi réglé wul wala mbir mi delluwaat na fa mu nekkoon donc day doon mbir moo xam ne si nii bu ñu wax nii gars yi delluwaat nañ ci grève parce que lii parce que lële du problème mu lii parce mënatuñ ko. est bi dara andiwu ko par exemple UCG après mu nekk ñu transformé ko mu nekk Sonaged est-ce que concessionnaire yi aussi tamit Sonaged ëmb yooyu yëpp concessionnaire yooyu yëpp. mu nekk benn bu ko defee yéen ngeen nekk benn bloc est-ce que loolu doon woon résoudre problème ba nga xamante ne ay jafe-jafe dootul amati. on peut dire benn bloc lañ. parce que ah ñun tey ñun tey segment yi kay tey xam nga suñu programme yëpp ci Sonaged ñoo ko yor. te yow Sonaged moom mooy xëy programme oto bi defal lii defal lii defal lii defal lii yow après que bi nga defee sa sa mettre oto bi dans des conditions yu mën a pour mu mën a liggéey. li ci des mhm. programme Sonaged la. moi je pense que peut-être pour uh-huh. terminer si uh-huh. que euh, la manière dont l'État gère les les les les les déchets pour ne pas dire les ordures. Euh, c'est à l'image de, de du du du rapport entre le Sénégalais et les ordures c'est-à-dire je pense que il faut que ñu ñu jox gëdd. li nga xam ne moom mooy ordure ak ñi ci liggéey mais tant que tant que le sénégalais xamul njëriñ boobu noonu état y compris nii rek lay demee c'est c'est le même rapport qu'on a euh, kuy liggéey ci ci secteur boobu heureusement que léegi les gens commence à à, à truc mm-hmm. mais euh, ni ñuy gérer euh, mbalit bi dafa doy waar et ñun suñu rapport ak suñu mbalitu kër mm. loolu dalay won état bi ni muy doxalee. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor suñu suñu. man bëggoon naa aussi sens boobu. Pape la dernière question nous avons deux minutes pour terminer. je sais ñu koy def euh, euh, voilà gars yi par exemple euh, na ñoo xam ne dañuy ñëw sànni ko foofu noonu dama bëggoon xam rapport bi nga xam nga xamante ne yéen liggéey si mbay beneen moom mooy amoon na benn initiative boo xamante ne waxoon ngeen ko pour bañ a tànqal nit yi. piip piip ah. euh, di di kii moom mooy euh, chanson Cheikh Lo bi set. macha <laughs> looy de. dara voilà ma loolu dama xamul amul amul suite wala. loolu ñu ngi ci loolu ñu ngi ci parce que commencé ah, woon war na gaaw a ñëw de. xam nga war na gaaw a ñëw seen <laughs> parce que boo xoolee boo xoolee oto doon klaxonné parce que là actuellement nii am na même ay sanctions yu ñu ciy jël. Ah. oto bi ni mu doon klaxonné ak léegi sa fait deux. donc léegi am na ay ay ay ay ñi nga xam ne ñu ngi ci terrain bi surveiller oto bi ndax mu ngi def klaxon normal wala mu ngi abusé. ah dafa am ñu koy surveiller. si ah bien sûr. ba pare koy def. mais ñu ngi jëpp waa démb bi ñuy émission fii oto baa ngi naan plein bi def. def am na am na au delà de ça aussi am na beneen kii comme affaire sonorisation par musique bi nga doon wax hmm. noonu. parce que du doon loo xam ne da nga koy def dans l'immédiat parce que sénégalais xamaguñ ko donc commencé woon nañ ko def phase test bi mais ñoom ñi ngi ciy liggéey. di xool après lu koy amélioré non xam nga par exemple boo defee phase nga xool nga gis lu mu jur parce que déjà bi ñu ko commencé gis nañu mbalit mu ngi ci kër hmm. ah, yi ñu ko doon bi ñu ko doon mais ñu ko doon tàmm lañ tàmm. voilà Sénégalais ko agressé moo bëgg ku ko agressé. di comme li li parce que même klaxon yi sax da gis ni klaxon yi da gis ni bi ñu ko wàññee sax da ngay gis ni. mu ngi mhm. commencé def day def effet de telle sorte que am na ñu bëri bëri foog ñu xaar pain pain pain pain. bu metti boobu pour moo bëgg lu mais il faut une communication <laughs> ñu ngi ci baax parce que boo boo waral na tey boo xoolee comme lay PRN exemple mhm. yaa ngi gis ñu ngi tabax benn kii jël ay pôle mbalit yu bëri teg ko fa parce que dañoo jël pôle yi di ko teg ci koñ yi nii mais dañuy gis ni gars dañ ciy abusé. souvent da nga duñ ko respecté wala pôles yi daanu fii yàqu fii mais dañ ko jël def ko benn place am ko fa nekk fixe matin soir nuit boo ñëwee da ko fa fekk mooy waral ñu léegi pour éviter yooyu ku ji bu la neex nga jël sa mbalit dem yóbbu ko foofu jarul ngay xaar oto bi. am na oto bu fay ñëw wala oto bi dana fa ñëw régulièrement di ko jël boo demee foofu tamit ka fa nekk moom dana mettre na les normes qu'il faut de telle sorte que yow mbalit bu déborder foofu. nga tey ak mbokk yi. waaw bi jeex na Pape émission bi jeex na s'il ah, vous plaît on a d'autres rubricards mm-hmm. donc voilà ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. waaw di leen sant di leen gërëm ci invitation bi donc di masawu sénégalais yi vraiment mbir la moo xam ne si wax dëgg yàlla neexul kenn parce que secteur bi comme ni ko waxee donc mission de service public la. Mhm. donc wax dëgg benn fan comme démb nii peut-être moom constaté wu ko mais am na jafe-jafe yu méttee métti yu am ci wàllu mbalit boobu noonu parce que mbalit ku ne xam na effet yi muy def. donc vu que ni peut-être commencé na déborder wala muy def désordre rek donc voilà mhm. di ñaan daal autorités yi. engagement yi nga xam si jël nañ ko aussi tamit wax dëgg yàlla fii ak semaine bi semaine bi si topp ba ci beneen semaine bi dans trois semaines ñu mën ko respecté wax dëgg yàlla ba ñu mën a ba ñu déggati ci détails yii nii suñ ko respecté wul da ngeen di le lendemain dañuy grévaat parce que là actuellement nii mbir la moo xam si du nekkatul dépendre tul ci ñun. d' accord merci beaucoup jaajëfal nañ leen bu baax a baax et je pense que Kajoor sànq li mu wax dafa am solo suñu diggante ñun ak suñu mbalitu kër man damay gis des fois yenn dépôt yi euh, nga xamante ni foofu dañ fay déposer ay mbalit pour que oto bi bu ñëwee euh, récupérer mbalit bi mais euh, yi ñu fa teg pour ñu fay def mbalit bi bu feesee da ngay gis koo xamante ni si koñ bi la dëkk day jël mbalitam ñoo sotti ko ci suuf. tu vois donc loolu mooy tax affaire bi dafay déborder aux alentours de dépôt yëpp mbalit lay nekk te loolu déjà c'est même pas bon ci li nga xamante ni moo di environnement bi ñuy dëkk bi ñuy nga xamante ni foofu la ñuy dundoo ñu ngi lay remercier am yaakaar ni que état bi dina réagir nu mu gën a gaawee parce que 14 milliards quand même euh, bari na et que aussi da ngeen yor ay jeunes yu nga xamante ni da ngeen leen embaucher di leen liggéeyal euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la souhaiter nga passer une très belle journée léegi léegi ñu di kaat bu ko defee ñu dalal Fawzeyni